téléspectateurs de Walfadjri bonsoir à tout le monde et je pense que la sélection vous a plu ay kum ci ku nekk kenn ku ne na jàpp bu baax ne bu buñ doon yëkkateendoo suñu kàddu di àddu ca kaw lépp mooy sant kun fa yàkkoon sant ko bu baax a baax moom jàll Jalaalu wa Azal Kamal ci lum ñu may ñu tal fekkee bien sûr te kenn ku nekk cofeel gi nga am ci bëgg programme Walfadjri du ñu tàyyi mukk bokk gu ñu bokk njabootu Seydina Mohamed moo tax saa su nekk suñu yéene ci yéen mooy kenn ku nekk yéene bu mu am rek euh, yàlla na ci suñu borom taxaw ba aju yëpp faju eh, mënuñu yëkkati suñu kàddu it euh, te seetuñu population bi nga xam nit jamono ji ñu ngi am leen di metti ñii ñu feebar ñii ñu xamante nit bokkul ci seen yéene suñu borom dogalal leen ko lépp rek nañ jël baatu muñ te xam nit euh, eh, suñu yéene ci ñoom mooy fexe ba ñaan suñu borom ñu defal leen tawféex bu baax a baax a baax di fàttali bu baax ñi nga xam nit dañoo nekk ci maison d'arrestation yi muy ay détenus E, yal leen yàlla génnewaat ngeen bokkaat ak ñun société bi Walfadjri dooraat na ci programme am e, nga xam ni magazine bi yéen lañ ko jagaleel muy grand soir grand soir nag e, bu dooree rek tous les samedis xam ngeen ni à partir de vingt 22h 22h30 rek dañuy door ak yéen before minuit ma am nag sama xarit mu nekk sama frère may rafetlu bu baax te du ma tay ci Walfadjri njëkk rek dama koy bàyyi mu nuyoo nuyu àdduna bi yëpp laata ñuy door ci li ñu bokk dajale lépp rek day ëmb ci programme Walfadjri nga xam ni te seen mbégte yéen seen fidélité toujours day doon bànneexu Padros Padros nuyu naa la bu baax a baax. maa ngi lay fay Thiamas. te itam di la bu baax a baax. di la ndokkeel di gërëm bu baax a baax téléspectateurs yi toog. di leen nuyu te tamit di jaajëfal képp koo xamante ni ci suba ba tey. mi ngi toog tey bàyyi xel programme bu euh, Walfadjri mhm. ñu ngi leen di ziar tey tamit di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen di àndandoo ak Walfadjri ci lépp luy programme bu riche jàpp nañu ne fi mu ne nii dañeen nar a àndandoo teeg ak ñun ji programme bi nga xamante ni moom ci euh, samedi soir xam ngeen ñu ko te tamit miin nañu ko léegi doonatul loo xamante ni dañu leen koy leeral mhm. léegi xam nañ exact li nga xamante ni moo di il est minuit euh, désormais tous les day dikk àndandoo ak yéen mhm. fi ne nii xam ngeen li nga xamante ni ci lañ doog waxtu wi di before minuit before minuit doon li nga xamante ni moom la ñuy euh, anticiper minuit bi tàngal neexal tuuti mhm. laata minuit di dikk ngir ñu mën a àndandoo ak yéen ci bànneex fi mu ne nii noonu la ñu ko nar a doxalee mais nag tey da ci spécial Thiamas ah, tey dafa spécial histoire une question. bien sûr dama naroon ni la Padros. Euh, nous offrir ay ah, mais tey gis nañ ni plateau yi nga daan joxe. Mhm. macha allah mais bu tey bi da cee raw. bu tey bi dafa yànj lool. Euh, donc euh, buggoon naa nga leeral askan wi. lii uh-huh. ci nam xam nga li ñu ci nam rek bokk na ci bu ñu jëlee large. Mhm. dinañ gis décor bi ni ñu ko changé par rapport ak li nga xamante ni moo li doon am. ci ay samedi ci ginnaaw. Mhm. ci euh, il est minuit wala before minuit. before minuit li ko waral bokk na ci li nga xamante ni moom la dëkk dëkkmal demain incha allah. bu mhm. subaa jàmm mais il est minuit dafa spécial ci lépp lu muy am loo xamante ni événement la. Mhm. ci lépp loo xamante ni programme la bu riche ci Sénégal. da ciy àndandoo ak yéen c'est pour cela mu ñëw nar lii di nga xamante ni moo di euh, fête des mamans. fête des la ñu nar a àndandoo ak yéen. tey ci soirée bii nga xamante ni moo di before minuit mm-hmm. nar ci àndandoo ak téléspectateurs yi mm-hmm. ñu bégalante ci ba mu neex mm-hmm. Patros Thiamas ñu jokko ak ñoom laata minuit di jot ñu anticiper Euh, fête des mères. waaw ouais, c'est ce sera très normal parce que euh, j'allais juste ni la dama lay may njëkk uh-huh. benn vingt cinq minutes uh-huh. boo xam ni Euh, télévision Walfadjri ak téléspectateurs am nga xam ni mhm. euh, ñoom seen plus grand souhait envers leur maman euh, c'est l'occasion d'y anticiper kenn ku nekk nag c'est c'est le moment surtout si sa yaay mhm. saa yu ñu nee rek ana ñu bëgg seen yaay ñu yëkkati seen loxo mhm. fii dañ naan ku bëgg feeñal sa souhait ah. mun nga ko jaar bien sûr ci numéro bi nga xam ne di ko joxe léegi waaye beneen pàcc bi dinañ leen joxaat beneen dix minutes boo xam ni fauteuil bi am na kenn moo xam ku ci war a toog. man ngoog xam nga yow xam donc ñaari pàcc lañu am tey <laughs> <laughs> joxal gars li ñu war a soxla pour mu ñuy dugg. Mhm. ay kenn ku nekk def sa souhait. Mhm. ñu anticiper à nos moments à nos veillantes moments. Mhm. à nos moments de premières heures. à nos moments dans les instances de décision. à nos moments responsables dans l'administration. mais à nos moments religieuses. ñi nga xam ni wax lañ ci këri diine yi euh, donc autour de ça euh, Walfadjri defar leen benn plateau d'anticipation euh, ci képp ku mu rek nga am cofeel feeñal ko mu doon bas écran bi ñu bindal la ko waaye tamit nga yëkkati sa kàddu ci li nga xam ne yaa ngi koy joxe léegi ma xam nañu tey tamit min nañu numéro bi nga xamante ni moom la ñu jokk ak yéen boo leen ko defee da ngeen mën a souhaiter seen yaay yi fête des mamans di ngeen mën a ñaanal seen yaay yi mu yàgg seen kanam wala di ngeen mën a ñaanal seen yaay yi fa nga xamante ni fa la ñu tëdd di barzaq mhm. suñu borom yàlla woyofal leen suuf seen kaw mhm. mhm. lu mu ci mënti doon boo dikkee dinañ ci àndandoo ak yow yow mi nga xamante waxtu wi yaa toog ci sa salon wala foofu lu mu ci mënti doon boo dikkee dinañ jokk ak yow ci 88 628 99 99 ngeen def appel def 114 mën a yegg en direct ñu mën a jokkoo ak yéen xam ngeen ko te itamit boo leen dikkee képp koo xamante ni am na lu mu dencoon ci euh, ci ci ci dënnam mhm. mu fas yéene ko wax yaayam dina am possibilité <laughs> wax ko devant euh, tous les Sénégalais devant tous les Sénégalais bien sûr ah di nga am possibilité wax ko ci ci ci kanamu bëtti doomu aadama yëpp ci mhm. euh, nopp doomu aadama yëpp mhm. li ko waral eh bokk parlant de nopp sax eh, ku ñu amul ci télé bi mën nga ñoo am ci rajo bi ah bien sûr ci ban fréquence mën nga ñu am ci 93 point 6 bu ko defee rek efficace ma ngoog ah ben surtout euh, grand souhait à ta maman alors dina am possibilité tamit envoyer seen i message mhm. ci euh, benn numéro boo xamante ni que dinañ leen ko jox tout de suite mhm. ngeen mën a envoyer dédicace yi ñu bind ko euh, en direct nga di ko liir bu ko defee nga mën a souhaiter sa maman fête des mères Uh, happy birthday nga mhm. ñaanal ko suñu borom yàlla ñaanal ko jàmm defal ko jàmm ak lu mu ci mënti doon. message bi dinañ leen ko wan léegi léegi. bu ko defee ngeen mën a envoyé na ngay def minuit. boo bëggee envoyer message bi. Mhm. defal minuit da ngay def M I. Mhm. N daal di def huit mais collé lay doon quoi. M daal def huit. chiffre huit. waaw chiffre huit lay doon. ok bu ko defee nga def euh, espace. Mhm. juste après nga def message. daal di koy euh, bind sa dédicace xool nu la neexee. nga lancé ko ci ñaanal sa yaay mu dund. waaw ma ngoo ko juste après nga doogay def envoyer ko. ci 24 2 24. loolu leer na nga ko envoyé ci 24 2 24. loolu leer na mais c'est pour permettre ñi nga xam dañoo dabe. Mhm. reprendre ko nga ni boo bëggee def SMS. boo bëggee def SMS yi SMS yi da def euh, minuit. ñoo mhm. koy bindee bindee mooy. Mhm. da def M. I. N. def 8. def chiffre 8. chiffre 8. M ngay def. I. Euh, N. def 8. noonu mais yow da nga bëri fem maanaam pour mu gën a leer rek pour pour ñi nga xamante ni <laughs> pour ñi nga xamante ni sama genre yi waaw ñu mën a comprendre <laughs> ñu mën a comprendre dafal m i mhm. n mhm. def huit def huit ma ngoog nga mhm. collé ko def espace euh, daal di bind sa message juste après euh, nga envoyé ko ci vingt quatre deux vingt quatre ok ma ngoog leneen li mooy revenons en nous euh, ñun ñu ngi ak suñuy portable uh-huh. am na ñoo xam ni ne mënuñu accès xam nañu xam nañu uh-huh. bu ngeen ñu envoyé tamit SMS euh, bi bu accès yi dañ koy lire ca kaw en direct ngeen dégg ko en direct pour uh-huh. vous dire que Walfadjri est là pour vous faciliter les conditions que vous vivez euh, facilitation boobu dafa feeñ ci biir si liggéey bi bien beneen bi mooy euh, kuy ràcc sa kanam mm-hmm. defe naa ni moo war a njëkk a dënd dëgg dëgg sama yaay Seynabou Mergane wallaay ndeysaan maa ngi koy souhaité franchement loo ko wax doy mu dund ba ci kanam mu gunge ñu ba ci kanam a kanam yaay booy reste longtemps parmi nous euh, yaay booy mënuñu la fay parce que wolof moo wax yaay mhm. yaay euh, la ca topp dafa bari mhm. yaay ki nga xam ne yaa tax ñu gane àdduna mhm. yaay ki ma toppatoo yaay ki ma doon yóbbu école may jàng yaay ki ma doon fóotal sama yére yaay ki ma doon fayal école yaay ki ma doon yaay yaay yaay Euh, yaay kenn mënu ko fay te fi doom yi di rawante wër na yàlla mu ngi ci jur yi rawante bu jigéen mhm. moo tax ma maman bu mhm. maa ngi lay ñaan lépp loo ñaan ci sa kurus googu mhm. yàlla na ko Seydina Mouhamed dégg ba nangul la ko Padros loo wax sa yaay xam nga la nga wax laa jël <laughs> copier coller est-ce que est-ce que xam nga copier coller <laughs> maanaam da nga jël li gën a rëy ci ay kaddu est-ce que kaddu yu sell est-ce que jébbal ko ko moom man maa ngi ñaan sama yaay ji Aminta Ñang mhm. ma nga ca màkk toog mhm. du jug ci di ma ñaanal du jug ci di ñaanal Thiamas ak Xaadim Mbay du jug ci di ñaanal waa àddina sunu yaay rasulillah mhm. bés bu jot mu jàkkaarloog moom mhm. daal di koy ñaan suñu borom yàlla defal ñu jàmm jàmm jooju nag nga di ñu ñaanal mhm. moom la ñu lay delloo yaay booy tey tamit di ñaan suñu borom yàlla yàgg laa bàyyi ci suñu kanam ndaxte bu du woon yow tey mu ñaaw yow la woon ba tax na tey ma toog fii ma toog di mën a a yëkkati kàddu sénégalais yi di ko déglu wala adduna di ko déglu wala ku mënti doon ci adduna di ko rafetlu lu mu ci mënti doon ci safaan xam leen li ci man la waaye nag ci xam ne ni sama ndey ju baax ji la moom Aminata Niang ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla yàgg koo bàyyi mu dund lu bare bare amiin waay man bu dundee rek ma sant amiin waay day gën a dund bu dundee rek ñu sant day dund day gën a yaay booy ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàlla yàgg laa bàyyi ci àddina mhm. ak bépp yaay caamaas waaw bu ñu waxee bépp yaay sax foofu le temps que mhm. ngeen envoyé ñu sms yi comme ni ko Padros waxee rek mhm. n'oubliez surtout pas bien sûr euh, ngay def i n nga def chiffre huit ma nga espace mhm. dugal sa message yëpp mhm. nga envoyé ko ci 24 2 24 ma ngoog euh, am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy déglu aussi euh, ci fréquence FM bi 93 mhm. point 6 mun ngeen ñu ko envoyé aussi par téléphone 88 628 99 99 ngeen bës 114 ñu am nag sunu yaayi bopp yu uh-huh. sës ci ñun yaay yoo xam ni <laughs> wallaay euh, wallaay wallaay ñu yaay aminte uh-huh. juré juré noon la ñu yaay yooyu juré xam ni uh-huh. du ñu woo Patos téléphone du ñu woo Thiamas mm-hmm. waaye saa yi ñu dooree ñoom ñu ngi ñuy woon ah, njureel seen fidèle ah, seen seen seen xol ci ñun seen ci ñun ah, dafay dëggu mm-hmm. yaay yooyu ñu tudd seen tur mais ñu ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen ñaan rek yal na ko yàlla nangu mu am nag ci ñoo xam ni suñuy yaay leen xam mm-hmm. nañ seeni i tur te tudd ko ayut eh, ma am ci koo xam ni it eh, Cheikh Kanté moom mooy soxnaam eh, muy Ami Diawara Ami Diawara Ami Diawara c'est c'est la fête des mamans donc maa ngi lay souhaiter yàlla nga fekkee sa njariñu njaboot Ami Ami Diawara ñu koy wax madame Kanté am naa ku ñuy wax soxna maam Marema noonu laa koy woowee ah, Adja Mame Marème <laughs> moom xaritu euh, madame Beng la mhm. euh, franchement mu nekk koo xam ne mi ngi servir bu baax pour le Sénégal euh, comment ma wax ko mooy mhm. daf ci am ay jaamu yàlla yoo xam ni dañuy dimbali mhm. jaami yàlla ci kaw suuf ñooñu dañ leen di souhaiter lu ñu am ba ci dimbali jaamu yàlla yi yàlla na ko yàlla gën a yokk loolu gën a bari gën a bari gën a sakkan mu mel ni am nga yeneen yaay yoo dëkkal yaay yoo xamante ni dañoo sori ci man comme ni yaay yi sore ci yow jàpp naa ni noonu la ñu sore ci man sore ko mhm. ci yow mhm. ndaxte bu ñu toogee rek janoog ñoom bànneex rek lañuy gis ci ñun ba mhm. tax na du ñu bëgg benn yoon ñu gàtt ci suñuy wax yéene nañ ñu jàmm ndax sama yaay ju baax ja daf ma daan wax naan ma saa yoo xëyee rek del ñaan yàlla suñu borom bàyyi la ak nit ñi gën ci yow est-ce que nit ki gën ci man bokk na ci ki nga xamante ni toog na waxtu wi. Mhm. di sama yaay ndey soxna ñang mhm. ma di ko ñaanal suñu borom yàlla yàgg ko bàyyi. waaw amiin waay amiin yaa rabbal aalamiin ñaanal suma yaay ju baax jooju nga xamante ni moo toog di euh, Fatou ñang mhm. suñu borom yàlla yàgg ko bàyyi ci kaw suuf. amiin waaye nag ki nga xamante ni moo di soxna Xadi Seck. borom Parcelles Assainies sama yaay jooju maa ngi koy ñaanal suñu borom yàlla yàgg ko bàyyi ci kaw suuf. yaay booyu soxna Xadi Mbay maa ngi lay ñaanal suñu borom yàlla Eh, yàggal sa taxawaay ci àddina mhm. ak eh, yaay Aram mbay maa ngi koy ñaanal ma leen benn yoon di mhm. ñaan suñu borom yàlla yàgg leen bàyyee ci kaw suuf mhm. ndaxte bu leen fi bàyyee rek sama xol sedd na guy soxna Awa Gueye maa ngi koy ñaanal moom it tamit Awa géy mu chéri far ba Sarr moom la ministre maa ngi koy ñaanal bu baax a baax sama yaay ju baax jooju sori ci man lool eh, suñu borom yàlla yàgg koo bàyyee ci kaw suuf mu dund lu bare bari ndaxte sori na ci man lool ndaxte sama ndey ju baax ji moom ma di ñaan ñaan googu noonu gën di law mhm. euh, di euh, saa yu ma xëy rek may ñaan suñu borom yàlla yàgg maa bàyyi ak nit ñi gën ci man te nit ñi gën ci man weesuwul ñu dul ñuy toog waxtu wi jàkkaarloog ñun mhm. euh, di ñu bàyyi xel waaye du tee yéen tamit ba tey di ngeen mën a jokkook ñun xamante ni euh, moom mooy affiché noonu ci euh, suufu baaru écran bi di 88 628. 99 99 nga def appel def 114 mën a jokkoo ak ñun. Mhm. daal di mën a souhaiter sa yaay euh, bonne fête des mamans bu ko defee fa mu toog. Mhm. fu mu mënti nekk ci àddina. fu mu mënti nekk mu mën ko yëg ci biir xolam mhm. ndaxte tey feexte la ci doomu aadama mhm. nga toog di wax ci sa yaay bien sûr te it euh, Padros dañ ci mhm. am ay ñoo xam ñu ngi ci kër gi euh, ku ci mel ni ajaratu Awa Diop Ndiaye mu ko souhaité yaayam mu resté longtemps sur cette terre waaye du te it euh, ajaratu Bétimbu Bétimbu moom it aussi nee na mi ngi koy yóbbante yaayam moom ci nekk gu mu nekk ak yaayam wallaahi euh, wallaahi fier lool ci yaayam mm-hmm. euh, yaa ngi gis euh, cabanaati muy caba Dramé oh. di ko souhaité yaayam bu baax a baax wallaahi wallaahi koo xam ni mm-hmm. yaa ngi ci kër gi mm-hmm. franchement nekk ak sa yaay jàppal ni mel na ni tudd leen sa tur Eh, mu mel parce que bay ci say oom. wallaahi te it ñii nu nekkal ci personnel bi. Mhm. franchement mhm. kenn ku ci nekk yaa ngi rafetlu. wallaahi nekk goo nekk ak sa yaay même Najib Sagna nous envoyé. un SMS euh, depuis euh, Rufisque. Mhm. di kontaan ci moom bu baax. léegi ñu jël kii ak euh, képp koo xam ne rek dugg nga ne ko wax ayca waxal ak moom salaamaaleykum. waaleykum ku baax baa yaa ngi ci jàmm. macha allah ñu ngi lay delloo char bu baax a baax. yaa ngi euh, téléspectateurs yi ñu ngi ñuy dégg Cheikh Tidiane au carré mu yokkal ñu ko. waaw Cheikh Tidiane au carré <laughs> bu ko defee ñun ñu am retour. ndax téléspectateurs yi ñu ngi koy dégg waaye ñun dégguñu ko bu baax. allo. waaw ku baax ba yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci bu baax Fadoro. macha allah macha allah ayca kooku na waay. Mouhamed Fall. Mouhamed Fall ah kii de président Padros famille la <laughs> Mouhamed Fall. <laughs> yow yàgg naa wax ci sa yaay waaye dama lay bàyyi ak càmbaas rek bu ko defee moom mu waxtaan ak yow. ay ci Mohamed Mohamed delloo na. wallaay ndeysaan di kontaan trop ci teew bi foofu noonu. merci. alors wàññil télé bi wàññil waaw na fay sax. retour bi am ci téléphone bi. waaw wàññil sa tele bu baax a baax déggante bi neex. ok waaw sori ko sori ko. non eh, fay ko voilà wàññil son bi rek carrément. Uh-huh. ok Thiamas. ay ci moom it yow la ñuy déglu di leen nuyu bu baax a baax. di nuyu kilifa di nuyu kilifa aada yi. di kontaan tamit ci jaay waxtu bi ci sàmm di laal di sama ma wala fajiri TV. wallaay. boo mënoon yokk sa baat sori télé bi dinañu neex de. Mm-hmm. waaw man maa ci la bi waaw waaw kay bàyyi. Uh-huh. xam nga mm-hmm. di la tëjee. Mm-hmm. parce que yaay dafa dafa ñàkk dafa dafa rëy Xaadim Mbay man su ma suma yaay. mën naa wax te lii mën naa jooy tuuti mën naa jooy quoi quand xam nga man xam naa ko. Mhm. parce que yaay dafa sori ci man sama yaay su ma mhm. yaay damaa kontaan si moom man man mu xam ne. ndeysaan ndeysaan. su ma demee lu neex. des fois ah c'est pas facile. oui c'est pas facile de remercier. pour nga wax ci moom. tey tey su ma demee ba tool yële rafet moom la. ndeysaan. suñu yaay ñu ngi xool ba xam. lekk naa wala lekkuma. balaa moo tëdd si lan ma woo ba xam tëdd naa wala tëdduma. day fekk man ak moom gerte na man kontaan naa si moom. waaw waaw man bu may am quatre ans laa laa laa gëj a nekk ak quatre ans. bi mu amee quatre ans. quatre ans. ok. waaw quatre ans. waaw mu métti trop si maanaam. mais moo tax. nga ni bi nga amee quatre ans nga gëj a nekk ak moom. laa bi a nekk ak moom benn nii. ok. mu méttoon trop début bi. Mhm. parce que da ngay nekk kër gi. di jël sa sa yaay. Cheikh mhm. Tidiane ils arrivent parfois on a des problèmes un peu de retour ok loolu loolu loolu ñu doon loolu graw si yow mhm. mais yooyu léeg mu neex mhm. léeg-léeg mu naqari mais tey jii nii sant nañu yàlla bu ñu taxawoo di ñu ñaanal ba métti boobu noonu yëpp tey nga fàtte ko est-ce que comme mu amal man amu fay dëgg la. ok ndeysaan dëgg la. ko. man mhm, mhm. eh, nga xam ne gërëm naa ko. Mhm. bépp boobu ñu rek taxawee. wallaay ndeysaan. ñu def li ñu ci mën. bëgg rek ma ma raw samay morom. jërëjëf. bu dee def ci man. jërëjëf bu dee jàppale. ma jërëjëf soxla wu ma la laa soxla ci juróom nga dem liggéey ñoo am lu bokk ak li mu wax daw na yaram daw na yaram romb na foofu parce que wax naa la ko sànq euh, mhm. yaay yi dañu jëmm joo xam ni mhm. neexul a gërëm rek di continuer bu fekkente ni sa xol dafa oyof mhm. am na nooy gërëmee sa yaay bu dee looy xuus di nga dem ba ci biir da ngay taxaw parce que boobaa xol ma nekk allo allo allo. waaw ku baax na nga def waay. sant yàlla bu baax a baax. baa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah jaajëf ayca kooku na waaye. di gërëm euh, seen émission bi. Mhm. di ko rafetlu bu baax a baax a baax. jërëjëf merci beaucoup. maa ngi tudd Paco tudd Amath. yaa ngi tudd. maa ngi tudd pako waaw. ñu gën ko xam ci turu Amath Seck. Amath Seck. Amath Anne Mariste. Anne Mariste. waaw di gërëm émission bi baax a baax a baax di ko rafet rafetlu bu baax a baax. jërëjëf comme que gërëm nga émission bi yaakaar gërëm yaayam. ah bien sûr. ok. Uh-huh. bien sûr di gërëm sama yaay ajaratu soxna Ndiaye. Mm-hmm. waaye dundal waaye ajaratu soxna. Uh-huh. dundal ajaratu soxna. waaw ah, moom mi nga xamante ne mooy yaay jolof jolof yëpp waay. ah waaw ah wax ko ca kaw wax ah, soxna Ndiaye. di gërëm waaw di gërëm. Uh-huh. di gërëm samay goro. Ah, waaw waaw. di leen ñaanal VDN bi mu nekk loo xamante ne ati ati at ñu koy jublu cent onze ans sans ordonnance. amiin waay amiin waay amiin yaa ko ñaanal yéen waa groupe Walfadjri. wallaay ah, di ko di ko delloo njukkal caamaas mi toog. wallaay caamaas waa jooju toog si wetam. jërëjëf waay Padros waaw di leeru jamono bu baax a baax te xam ne li ngeen wax lu am solo la. wallaay ndeysaan jërëjëf. waaw waa ko coppe nag ñëpp xam nañ day yaay ñu mel si doom. wallaahi. Mhm. yaay yaay kenn la. dëgg la. bàyyi bàyyi ñëpp la. wallaay ndeysaan. di ñaan yàlla képp koo xamante ne sa yaay ngi dund jamono jii. Mm-hmm. ñun ñaan ci kàttanu yàlla yonent bi. Mm-hmm. yàlla bàyyi ko fii. dëgg la amiin may ko wér. yàlla may ko gudd fan ak wér yaram bu baax a baax. ba ñu fekkee seen ñu di doom yëpp. waaw ci kàttanu yàlla loolu ñu ñaanal yaay yëpp daal. amiin macha allah mu ngi lay ñaanal fi mu tëdd na ko gënal fu mu nekk foofu di ñaan yàlla sunu borom yàlla buur bi sunu borom mu xaare ko aljana amiin amiin amiin amiin gën a kawe mhm. waaw di rafetlu émission bu baax a baax jërëjëf jërëjëf waay kontaan nañu donc euh, mën nañ def ko commentaat euh, moment bi yéen a ko moom mhm. yéen ñi seetaan télévision Walfadjri parce que mhm. Sidi Lamine Niass il a l'habitude souvent di ko wax absolument mu ne bu leen di fàtte mukk ni it euh, Walf buñ ko doon xaaj mhm. yéen la ngeen cee am sax du toll du toll nip xaaj ndax la ca des lépp ñii seetaan Walfadjri ñoo ko moom donc kee mën nga koo tënk ci kon wal fu du hmm. lenn fenn kenn waaye lépp fépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci te dañuy anticiper gërëm yaay ne ko allo salaamaaleykum waaw ku baax na nga waaw ku baax na nga def waaye allo allo ñoo ngi sant yàlla yéen a ngi ci jàmm macha allah baax ñoo ngi rafetlu émission bi jërëjëf kookan la waaye man maa ngi wootee Ndayane ok sekk ci ngi naan amul bañu kaw yàpp lay dundee <laughs> loolu la sekk bi nag yaakaar naa ne lekk na ginaar ba toog ak yow ah, ah, waaw fi mu nekk ay sekk ci ginaar ah, pare nga de eh, ok da nga naa ko damay gërëm sama yaay jàpp leen walf daamaa damaa bëgg gërëm sama yaay gërëmal kon ba gërëmal <laughs> gërëm sama yaay Khady Faye walaay sekk aha jatu allo. allo waaw jatu jatu Seck yow lañuy ñuy déglu waxal. waay maa ngi wootee Ndeyaan damaa bëgg gërëm sama yaay daa baax ci ñun. bu baax la. Mhm. nu mu tudd. ñoo di ko sant. nu mu tudd di ko ñaanal yàlla nag. yàlla yàggal ko lool. nu mu tudd. mu ngi tudd Khady Faye. waaw kay Khady Faye Birame Penda waagaan dugg dugg waagaan. <laughs> <laughs> <laughs> yow rëcculoo yow rëcculoo woon lu xalifay doon nekkee sa yaay. dëkku Tyson 2 laay wootee Ndayane. waaw Ndayane foofu la Tyson numéro 2 dëkk. <laughs> mais yow rëccuwoo la doon. lu lan la doon amee may may gërëmaale sama nijaay yëpp nag. fedde nijaay dañ <laughs> ah, nijaay mooy. yaay. nijaay mooy yaay ni yaay ni yaay. ni sama maam yi. Mm-hmm. Maama Diop Yaay oh là là. vous avez retenu son nom Diatou ah, uh-huh, mm-hmm, ñëpp ñu ngi leen di mais gis naa sa portable bi noonu mi ngi mi ngi wane boppam message yaa ngi explosé comme ni standard bi di explosé noonu la message yi di explosé en téléphone bi taxaw na là on est obligé ñuy lire message yi. bàyyi ah, ah, ma a sérieux <laughs> ayca waaw kooku Mouhamed la moo jëli quoi. ayca waaw Mouhamed. waaw mais di kontaan rek suñ si yaay yëpp ah. Mhm. parce que jigéen yaay la. dëgg la. képp kuy jigéen rek. wallaay. man lay man man lay si waxee. Mhm. da koy neex. wallaahi. xam nga ñu ñaanal yaay yëpp. dëgg la. ñu ñaanal yaay yëpp guddi fan. wallaay ndeysaan. ñu ñaanal yaay yëpp lépp lu seen seen doom yaa ngi ko gis. amiin amiin amiin. seen seen doom tamit lépp ñu yéene seen yaay yàlla nañ ko gis yaay kenn amul fayam lépp moom la moo ñu tàggat mm-hmm. moo ñu defar mooy ñu defar moo ñu sang moom la ci ci ci ñu nekk moo ñu sang mm-hmm. yaay kenn amul fayam wallaahi wax ko ci kaw yàlla yaay ko julli man de sama yaay kontaan naa si moom en tout cas baax Mm-hmm. xam naa keneen na nga naan man kontaan naa ci sama yaay de man. non ah, attention am na ñoo xam ni boo wéeteeg ñoom ah kontaanu mm-hmm. seen yaay de. yaay ju jàpp ah, doom di ko mitital yaay ju jàpp doom di ko toroxal. Mm-hmm. yaay ju nga xam ne am na loo war warloon teg sa doom muy sa nawle defoo ko. yaay jooju bu doom ji wéetee boo ko laajee mu ni kontaanuma ci sama yaay dëgg la. am na fi. waaw ñun tamit yàlla leen ba xam. yàlla na yàlla yaay li ñu <laughs> uh-huh. amin amin Mohamed dëgg la amin amin Mohamed. teral leen. Uh-huh. merci beaucoup jërëjëf uh-huh. dem na mais mm. euh, sànq ñu ngi évoqué lu am solo. parce que tey il nous arrive parfois sax ci information nga koy dégg ci journaliste yi. Euh, fekk nañ benn liir bu ñu tëral fenn. Hmm? Mm-hmm. yenn saa nga dox ci mbedd mi gis doom joo xam ni. Mm-hmm. boo sañoon yow doomoo ko. Mm-hmm. parce que manquement yi ñoo bari ci xale bi. est-ce que des fois l'enfant a demandé de naître. wallaahi wallaahi ki ko indi. mesure d'accompagnement yi war ci xale bi. est-ce que kooku tey doomam dina woote pour gërëm ko. déedéet hmm? déedéet. ah donc xam nga. Hmm? borom yàlla dafa bind doomu aadama yi mhm. te te yemalewul jikko yeeg xol yi mhm. ak melokaan yi mhm. tey euh, Sénégal moo ma concerné surtout parce que ñoom la ëpp li ma li may gis bien sûr euh, dañu naan bàyyi ci sa weewu tànk euh, dafay bari léegi waaye nag su sañoon du fi am suñu borom yàlla la bind nañu baree bari ñoo xamante ni ñu ngi fi ci àddina waaye nag seen jikko yi yemul parce boo xoolee li ëpp li koy def léegi ci xale yi la da ngay jur doom mhm. jël ko teg ko ci benn palaas mhm. da ngay jur doom jël ko dugal ci mbalit mhm. dangay jur doom mu mel ni am na ku nekk ci ligne tegal sa baaraam foofu am na solo trop sax nga ko ma ni ko allo asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah salaamaaleykum Ka waaw doomu Souleymane xoolal da ngay fay tele bi bu ko defee ñu mën a déggante bu baax ci portable bi allo. allo waaw maa ngi lay dégg de yow yaa waxul ñëpp a ngi lay déglu yow rek yaa waxul. wallaay wallaay doomu tonton Souleymane te mu nekk ci suuf. ok waaw képp gan gu dugg Walfadjri moom moo lay ak moo la dalal dalal la yaatal la donc doomam muy Mouhamed. mooy woote ah oh nee na mu ngi gërëm yaayam gërëmal sa yaay. oh nu mu tudd. Borso Dia. maman Borso Dia Sénégal yëpp a koy gërëm. parce que kooku mooy soxna tonton Ka. waaye te Mouhamed a yow la ñuy déglu. nga ni yaa gërëm sa yaay. Mhm. oh là là merci. <laughs> oh sama xarit Mohamed <laughs> yenn yàlla def sa fan gudd lool. amiin lool wuutu sa papa mu mel nii dem na macha allah voilà c'est son papa qui est là. kontaan nañu ah nous le euh, remercions du du cœur. franchement vraiment je sais que y son papa qui est derrière. Euh, dugal ko xale bu ndaw la. dëgg la mais mu gërëm yaayam. c'est fort mu mel nii damay teg sama baaraam fii nga jël ko ne ko allo. ñu ngi ci jàmm. ba yaa ngi ci jàmm kooku kan waay. fan nga ñuy woowee. ma Dakar. Euh, suba di bés bi nga xamante ni moom lañu ñu jagleel yaay yi yow naka nga ko waajalee ak sa yaay. ah waaw man ak sama mag yooyu yëpp. déggu ma. parce parce que boo amee yaay ji mel ni suñu bos. dëgg la jaral na la sa bopp parce que dafa ko sedd na. wallaay ndeysaan ndeysaan. ndax ñun suñu yaay dafa sant ñun. wallaahi lalla. daf ñuy dégg. Mhm. daf ñuy tekk. Mhm. lu ñu lu ñu lu ñu bëgg rek mu taxaw ci suba ngoon. wallaay ndeysaan. ñun suñu yaay dafa suñu dara. Mhm. xanaa ñoo yoroo suñu bopp. jàng teree ko yóbbu ko maaka. wallaay ndeysaan amiin te tamit nag ñu ngi leen ñaanal aussi seen jërëjëf amiin merci ah, kontaan nañu kontaan kontaan nañ trop euh, mais xale vas-y vas-y ah, merci merci beaucoup merci jërëjëf ah, kontaan nañu euh, doon xale teewul nga xam wax ju sell mm-hmm, surtout doon tale xale teewul nga xam wax ju rafet mm-hmm. waaye nag am na ñoo xamante ni seen yaay moo leen teg coono dëgg neexul xam nga li waral ma ni seen yaay moo leen teg coono weesuwul lu dul nga am sa doom ca ba muy xaleel mhm. nga wër ko jël tàggat ko mhm. teg ko ci yoon mhm. teg ko fi nga xamante ni fa la ma aminte eh, ba tax na tey mu war a mën a doon dara ci réew tax na tey mu war a mën a siggi ci kanam ay nawleem ba tax na tey mu war a mën a siggi firi ci kanam ay soppeem kon loolu yaakaar naa ne yaakaar naa ne yaay yi moo ko war a def ci doom bien sûr boo amee yaay yoo xamante ni

lebal nañ la ko Khadija ayca. alors Khadija mën nga eh, wàññi sa télé laataa eh, ngay wax. Khadija par la demande de Padros mu ne nga wàññi télé bi bu baax. vraiment. waaw wàññi naa ko. jërëjëf uh-huh. jërëjëf. seen émission bi dafa neex trop te am na solo. merci merci beaucoup maa ngi leen di ziar bu baax. ah delloo nañ la ziar bu baax a baax li ngeen def li dafa neex ci xol. wallaay ndeysaan. ko moom. Euh, man dama doon euh, ñaanal sama yaay. Mm-hmm. mun ma wax sax parce que sama xol dafa fees. wallaay bari nga ciy morom. Mm-hmm. dañu ne góor euh, kilifa <laughs> bu tànnee soxna. Mm-hmm. da ngay xam ni tànn na soxna. tout à fait dëgg la man sama papa dafa tànn ay soxnaam. wallaay ndeysaan. est-ce que sama yaay sama tante ay soxna lañu. dëgg <laughs> sama yaay muy jigéen boo xamante ni musul fay musul fase. wallaay ndeysaan. ñaari baax dëgg ñu moom ak sama tante. boo ñëwee doo xam ne kii moo jur kii wala kale moo jur kale. Mm-hmm. est-ce que. dañuy jéggoo nekk benn. Mm-hmm. kooku nag sama papa lay ñaanal yàlla. wallaay ndeysaan c'est ndax mm-hmm. sama yaay ñëw bëgg ñu. sama yaay teral na mu nekk jigéen bu mën ko. mu nekk jigéen bu ñu bëgg. boo xamante maanaam euh, maa ngi ñaanal waa Fuuta yëpp. Uh-huh. ak yaay yëpp dëkk Fuuta. ndax man Fuutanke laa. waaw may ñaanal ñëpp nekk tukulër bokk ci biir Fuuta nit day bëgg boppam waaw waaw nit day bëgg boppam am nga fulla de <laughs> sama yaay daf ma bëgg wallaay ndeysaan baax da nga sama yaay daf may ñaanal euh, ma parce que ma maman wallaay euh, sama yaay dafa liggéey sama kër papa ku am yaay ju day faatu ñaa ak euh, Mariam si ñoom ñëpp maa nga leen di ñaanal. Uh-huh. gudd fan ak euh, wér ak bu rafet. ak sutura amiin na leen yàlla bàyyi suñu kanam. amiin amiin vraiment man mënuma fay. sama yaay. tu n'arrives pas à trouver les mots. <laughs> absolument ndax li mu def man dafa rëy. wallaay ah, ah, merci Khadija. maa ngi kontaan bu baax ci émission bi. vraiment kontaan nañu naa ko defal benn poème sax mais xam naa temps bi moom moo ñu ko. léegi poème boobu xam nga nu muy demee. Euh, waa. Ah. dama bëgg nga wax ma lan nga ko waajalal pour suba. Mhm. Euh, benn surprise kaamil alxuraan. oh oh c'est fort. la ilaha illallah loolu loolu loolu fort loolu uh-huh. fort. te suñu papa daf ñu yar ci diina ak l'islam ak ngor ak doom ak dollu ak maandu le plus beau cadeau sur terre. ñun diine rek lañu xam. la ilaha illallah. lépp lu dul diine lu bokkul ci diine bokkuñu ci. oh alhamdulilah diine la ñu xam ci la ñu yar ak maandu ak ngor. wallahi ak mm-hmm. doylu. Mm-hmm. yéen de def suñu ngor. ak suñu yaay def ñun lépp loo xamante ni valeur. wallaay ndeysaan. valeur boo xamante ni suñu suñu. daal bii moom la ñuy utiliser. wallaay suñu papa loolu la mooñaale ci ñun moom ci boppam noonu la mel. Khadija ba pare ay jabaram noonu la ñu mel. Khadija wallaay ndeysaan waaw. Eh, Khadija dama kontaan. Khadija naam. dama doon laaj kon yéen seen kër moom euh, tuumuranke wu leen maanaam ci valeur. maanaam seen eh, kër. crise des ah. valeurs dugg fa. Ah, ñun de valeur moo fay daw ñun. <laughs> diine diine rek diine <laughs> moo njëkk. ci ñun. <laughs> mais valeur rek valeur rek kon ku fa dugg am soxla ku ñëw ci ñun amoo ndax moom la ñu xam. Mhm. ak respecté nit. bu baax baay euh, mhm. xamante ni dafa soumise. wallaay ñëw nga teral ka ñun loolu la ñu jàngal. ndeysaan maa ngi sama xol bi dafa fees parce que bu ma continuer damay jooy. waaw waaw oh là là. maa ngi remercier ñëpp di ñaanal yaay ñëpp yaayu Sénégal yëpp. yal na leen yàlla defal jàmm amiin amiin Khadija. Eh, sama yaay je t'aime. <laughs> succès ma maman je t'adore. je ah t'aime trop ah I love you. ah. <laughs> merci beaucoup maman. <laughs> merci beaucoup Khadija. au revoir Kama Sey bonne soirée. merci beaucoup à vous pareillement merci c'est partagé. en tout cas jërëjëf dañuy teel tuuti ligne bi Padros. bien sûr euh, déjà mu ngi explosé. Euh, waay message yi man message yi mais euh, nit mbër yi nga xam ne ils ont l'habitude di toog ci antenne yi. waaw naan sama yaay laa bëgg a yóbbu Màkka <laughs> voilà l'occasion à travers votre télévision Walfadjri c'est l'occasion guy gi mhm. euh, ñoom euh, uh-huh. koo xamante turam ñoom euh, Siteu Siteu hmm? booyu Fass bi war a bëri Garga Mbossé ak Lac Sa Thiès Sa Thiès Balla Gaye Lac de Guiers Lac <laughs> ah ah donc c'est l'occasion yéen mbër yi ngeen dugg mhm. aussi souhaiter seen maman te dafa rafet par anticipation te dafa rafet hmm, parce que am nañu benn identité ci Sénégal daal. dafa rafet ñu. parce que dañu tàmm loolu. bien sûr après seen combat rek sama yaay laa bëgg a teral. wallaahi mais jaare ko ci kàddu am na ku fa nekk ne ko. allo salaamaaleykum ku baax. allo. maaleykum salaam ku baax. waaw man la kookal. jaama euh, waaw rafet na bonne fête des mères. jërëjëf mais à vous pareillement <laughs> à vous pareillement. ko ne waaye kële am na fulla ah, oui jël ko keneen. oh, oh, oh là là. avant muy passé téléphone bi donc on peut on moom xam naa dañu ko wooteel nga passe ma. avant muy passé téléphone bi. waaw waaw passé na message am. <laughs> am na seen liggéey rafet na te it euh, des fois nga gis euh, chanteurs yi les uh-huh. chanteurs compositeurs qui sont au Sénégal bari na ci seen biir album ok ñu way album ba mu jeex te delloowuñu njukkal yaay seen yaay gis nañ sànq vidéo yi ñu fi joxe dëgg la donc à travers aussi l'émission uh-huh. vous pouvez passer euh, de vive voix absolument ñu dégg leen uh-huh. ngeen delloo njukkal seen yaay xam naa titi mu ngi ñuy dégg bien sûr voilà l'occasion ñoom ami collégien pourquoi pas ñoom ay décembre ak góor ñi avant ñuy joxe fauteuil bii ki ci war a toog ma léegi ñu xool kii ba tey euh, alo salaamaaleykum. maaleykum salaam. fii xool baa tooy de. jarbaat. waaw ko ah, sama nijaay la daa mel ni. sama nijaay ñu ngi lay delloo. ziar bu baax a baax. leemu ñang sama nijaay la. mais ñang baalo. Camas lii naa mais fay naa la ñang baalo maa ngi lay bëggee maa ngi lay bëggee bu baax a baax. kontaan bu baax. est-ce jërëjëf ñu nit kontaan nañ ci yow. ah tey jii nag ñu ndokkale suñu boroom rek dañu fekkee bis amin waaye amin amin amin ñuñ jëf ñoo xamante ne dañuy sargal suñu ngay ji wallaay est-ce que ndax yaay dafa doon Alioune borom Karbala yokkal kàddu gi wallaay ma yaay dafa doon ci koo xam ne xel ñu ko fay dëgg di fàttali que leen di ñaanal rek est-ce que ndaxte yàllaa leen mën a fay daal amiin wallaay wallaay est-ce que kon buñ juddu woon di liggéey ba faa ñuy dee di leen joxe taxul ñu ñu bokk ko amiin ñu bokk ko yàlla ñu fekkee suñu mbir yi ce que euh, yàlla leen yàlla loo xamante ne ko ngeen fekke ko bokk ko ak ñoom ah, suma yaay yaayu àdduna bi yëpp maa ngi leen koy ndeysaan non xolu sénégalais moo yaatu lay <laughs> lu mu def wallaahi wallaahi jërëjëf kontaan nañu mhm. mhm. merci beaucoup kontaan aussi ci seen ànd jërëjëf jërëjëf di yàlla jàppale leen rek ci li ngeen di jublu daal mhm. mais jarwaat waaw sama nijaay la maa ngi lay delloo siyaar bu baax a baax ah, yaa baax nijaay ah kontaan nañu de Ah, lii de yow de xam nga ni yii yëfi taalibe la. <laughs> dinaa la ko jox yow yow xam nga fi ma ni ma mel ci yow. non yàgg nga ñu defal yàgg nga ñu defal. amin amin amin baax dégg nañ bu kontaan nañu kontaan di ñaan yàlla yokk seen taxawaay rek. amin amin amin amin. yàlla dëgëral leen waay. kontaan naa daal kontaan naa. merci beaucoup Lému Niang. Et bonne fête, bonne fête. Hein. Merci, pareillement. ben il faut bloquer un peu il faut bloquer un peu le téléphone ça va nous permettre euh, aussi serveur bi tuuti c'est vrai que gars yi kenn ku ci nekk bëgg naa dugg <laughs> waaye nag nañu ko bloqué tuuti rek waaw ñu may ñu voilà ñu nit aussi euh, ñu delloo ko ñi nga xam ne sonn nañ ci SMS yi SMS yi it c'est des amis très proches bien sûr déjà du lycée Kennedy John Fitzgerald Kennedy am nañ fa ay jigéen suñuy xarit yu baax ku ci mhm. mel ni Abibatou Traoré moom it euh, mi ñuy bëggee waaye te euh, aussi de toujours Kennedy Sophie Camara mi ngi foofu mhm. ak Bibita nekk mhm. euh, seconde LF ñu ngi leen di bëggee di kontaan tamit ñoom it nee na ñu ngi souhaité seen yaay uh-huh. longue vie am na keneen koo xam ne ni bonsoir je souhaite une bonne fête des mères à ma maman chérie mhm. que j'aime beaucoup muy abi Abibatou ma jeexal rek am na ku ñu yónnee moom Cheikh Ndaw nee na amin waay kontaan ci yéen Cheikh Ndaw nee na yàlla nañu yàlla sutural ci àdduna ak àllaaxira merci beaucoup Cheikh Ndaw donc am na ñeneen yoo jot foofu message yi bari na mais dafa bare bare bare bare bare ba fi mu ne nii <laughs> euh, doo mën a lim lépp dafa bëri bëri l'essentiel dinañ ko def Mbaye moom mi ngi souhaité euh, bonne fête de maman à euh, sa maman euh, di maman Khady mbay moom itamit ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla yàggal suñu borom yàlla yàgg ko bàyyi ci suñu kanam yaay booy dundal lu bare bari kooku sama tante la sama jabaru papa la waaye nag moom sama yaay la laay wax mhm. maa ngi lay ñaanal suñu borom yàlla yàggal sa taxawaay ci àddina yaay booy ak ki nga xamante nii moo di soxna Aram mbay ak euh, maire euh, Mariama Mbaye euh, tey tamit di souhaité bu baax a baax yaayu ki nga xamante ni moo di Ndeye Ngone kebe mm-hmm. Kébé Ndiouga Ali moom tamit yaayam ma nga fële nga xamante ni moo di ca Espagne. Mm-hmm. mi ngi kaa bon bonne fête des mamans. Sukay na maman Sukay na Faye moom mm-hmm. tamit ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla. yàgg ko bàyyi ci suñu xaram kanam euh, Khadija moom it tamit euh, waxi noppi mi ngi ñaanal suñu borom yàlla yàgg bàyyi yaayam ci suñu kanam mhm. ak it tamit ki nga xamante ni moo di soxna Mbène Mbacke suma yaay ju baax suma sëriñ bu baax boobu euh, Mbène Mbacke borom Sen TV moom it tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey tamit di nuyu téléspectateurs yi yëpp mhm. tamit di ñaanal tamit ki nga xamante ni moo di xam nga yaay yi ñun. Mm-hmm. dañuy am yaay ba am ay ñoo xamante ni ñoo ñuy yaayoo. Mm-hmm. am na koo xamante ni yaayu képp koo xamante ni rek euh, mi ngi ci euh, télévision wala mi ngi ci rajo sa yaay la. Mm-hmm. borom Guédiawaye. ah waaw waaw waaw maman Africa c'est la maman de tout le monde hein. <laughs> ah moom itamit maman mi ngi euh, ñaanal képp koo xamante ni rek. waxtu wi toog ak sa yaay. mi ngi lay ñaanal suñu borom yàlla. yàgg laa bàyyi ak sa yaay ci euh, kaw suuf. amiin waay moomu Afrika yow it tamit yaay nga. Mhm. ñu ngi lay ñaanal rek suñu borom yàlla bàyyi la ci suñu kanam. amiin waay El waaw. waaw ak euh, ki nga xamante ni moo di su euh, Soukayna Diop moom it tamit mu ngi souhaité yaayam bu baax a baax. maman yaay tuuti kan moom it tamit ñu ngi koy souhaité bonne fête des mamans di ko ñaanal suñu borom yàlla yàgg koo bàyyi ci suñu kanam. Tidiane Diop. Mhm. Euh, Cheikh Tidiane Diop euh, suñu switcher bi nekk ci réalisation bi. Mhm. moom tamit ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàggal bàyyi ya yàgg fee yàggal euh, yaayam jooju. amiin yaa rabbal alamin ak tamit Rama Mbaye moom mhm. tamit sama Rama Meng. yaayu Elzo. mi nga xamante ni moo nekk ci internet bi. suñu infographiste boobu ah. maman Rama <laughs> waaw maman Rama il faut savoir que on est très touché avec ton fils. Ah ah on est fier de lui. bien sûr bien sûr di moom Elzo. Ah, <laughs> tamit. tamit ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla yaa ngi koo bàyyi ci àddina amiin amiin ak it tamit euh, bépp moment boo xamante ni rek waxtu wi toog na mm-hmm. euh, bataaxal yi bari nañu waaye ba il est minuit dinañ ko fi mën a jàllale. Mhm. du bu leen jàpp ni message du jàll. incha allah dina jàll bu neexee yàlla ca kanam tuuti. parce que di leen rappeler que ni yéen a ngi ci seen before minuit. Mhm. before minuit xam nañu ni muy demee tous les samedis soirs. Mhm. Euh, dañuy dikk ci euh, before minuit ñëw neexal tàngal soirée bi tuuti. juste après ñu doog dikk ci li nga xamante ni moo di il est min minuit pile il wi ñëw àndandoo ak yéen. bu ko defee bëggal leen bëggu guddi gi xaaj. bu leen neexee ñun ak yéen mën nañu àndandoo. ba fajar bien sûr ba fajar xam naa ci laay jël nga teg sa baaraam ma mhm. fàttali nit Omar Touré moom dafa bëgg lool Walfadjri Touré Mandimori Touré Mandimori mi ngi souhaité at Oh. Euh, jàmm ju bari noonu la mel ci ajaratu Penda Diallo ah, di yaayu aussi ci kër gi yaayu Mamadou Gueye di kontaan ci moom kooku mooy chéri grand El Hadj Adama Gueye euh, aussi tamit Ramatoulaye yàggul dara mu am nouveau neem moom it yaay la ñu ngi koy souhaiter franchement longue vie à toi mhm. mu nag ñoo xam ne aussi it euh, dañoo nekk ci instance de décision yi fii ñun ñu nekk seen doom ku ci mhm. mel ni maman Mariama Sarr ñu dénk ko jigéen ñi Sénégal yëpp moom it ñuy doomam mu mhm. doomoo ñu franchement di ñu def ay conseil mhm. boo toogee télé lii ngay waxee. lii ngay toogee. Euh, donc euh, ñu ngi ñuy jàppale. ci li nga xam ne askan wi ñu ngi koy xaar ci. ci mel nit sunu yaay maman Wara Sarr. Wara Sarr mu baax maman Wara Sarr di ko bëggee bu baax. di mhm. kontaan ci it euh, Aïda Sow Diawara. Aïda Sow oh, yaay la yaay joo xam nit dafa yaatal. Diawara di ko ban waaw koo gis rek njabootam la ko jàpp. Mhm. sunu yaay gaynde waalo muy maman Dieynaba Fall. Dieynaba Fall yaay la yaay ju mat yaay a noonu. Eh, ak yeneen yaay yi nga xam ni eh, ku ci foog ni sori nga ñu rek eh, mm-hmm. xel mooy fat mm-hmm. maman Soda Diop nekk Médina mm-hmm. di ko bëggee de tout cœur ak képp koo xam te nit yenn saay c'est pas facile doom ju tekki parce que ku tekki bari ndey wallaay ndeysaan te doom sonn na laata gisul ay ndey may ko mu góorgóorlu ba ëllëg mu gis ay ndey jàppe leen ni ndeyam kooku mooy doom ju baax mhm. eh, doom du topp yaay ciit mhm. yaay joo xam ni da laa bëgg a yar mhm. yan saa yi ngay wét sax defee ni sa yaay dalaa bañ Mm-hmm. fekk dafa bëgg ëllëg boo màggee jom nekk ci yow te ku jom nekk ci moom mooy mm-hmm. ki jomb mm-hmm. jomb nag mooy foo xam ni ku la fa fekk xas la te ku la xas rek xasaane la sa njaboot donc il faut éviter de salir le dos de ta famille à travers certaines gest yoo xam ni ku la ca fekk rek euh, euh, da da ngay da ngay rus lool te yooyu yaay bu ko incarné ci doom ba doom màggaale ko doom jooju day sawar a woote pour gërëm yaayam Euh, patros mhm. di nga gis doom joo xam ne tey mhm. bëggoon na woote gërëm yaayam mhm. mais yaay jë jëmu bëggoon dëgg amu ko mooy la ma la doon wax sànq yaay ja la mu koy indil ci xéewal fa mu koy jëlee gënalu ko te mënu la taxaw ni ko yaay lii nga war a bàyyi donc bu demee bay dégg yaay mhm. kon yaay war naa jomb lu bari ngir bis yu mel nii minute yu mel nii mhm. kooku sawar bu ay nawleem wootee mhm. moom it mu mën a woote gërëm yaayam te yàlla rekk tax ci ñu koy gërëm kon nag doom toog na tey wéet doom jooy na ci noo xam ne yaayam mi ngi koy dunde ba ay nawleem yu bari yëpp ko moo tax Assane Ndiaye naan wutaloo ma way fu ma neex jaar kooku yaay ju baax may jégalu bu baax am na jërëjëf ci ligne bi ah vraiment rafet na rafet na loolu mais nañu xool eh, ki nekk ci ligne bi 88 628 99 99 appel 114 bu ko defee nga mën a yegg si ci antenne bi comme kii nekk ci ligne bi waxtu wi. allo salaamaaleykum. si na nga def waay. maa ngi fi Pape ça va. baa yaa ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla. Mm, mm, mm. maa ngi Seynabou Ndiaye. kooka na waay. kii sama turu yaay la Seynabou Ndiaye. Seynabou Ndiaye. <laughs> waaw. ah kii dafa mel ni sama doom la. waaw Seynabou. ah. <laughs> <laughs> waaw moom la kay. ah sama doom Seynabou la. <laughs> maa ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi ci émission bi. vraiment ñu ngi kontaan ñu nit. maa ngi souhaité bonne fête des à tous les merci beaucoup merci particulièrement sama yaay. wallaay ndeysaan. parce que malgré man mënuma wax mais il fallait que ma wax ci moom. xam naa ko ci yow. parce que ñun dañu teel papa. wallaay ndeysaan. te jooyee papa ndax moom. jooyoo leen papa ndax sa yaay. ok. lépp euh, lu ñuy defal lépp lu bëgg. wallaay. war na yàlla. Euh, la ilaha illallah. xanaa kay di ko ñaanal rek yàlla bàyyi ko ci suñu kanam. wallaay ndeysaan nu mu tudd. moom mi ngi tudd say ndaw. nday ndaw. ndaw sa saan leene aram faxa balam ndukumaan rek baka nga def ca sara koñ deeneen ndumbe nga ca sadio maan kon nga la waay dundal bu baax a baax ndax say doom gisuñu seen baay ma ne joxal sa baay mu bëgg junni ma ngoog <laughs> waaw ñun daal ñu koy sant di ko gërëm wallaay merci ah, ñaan yàlla rek ma bën nañ ko ci moom waajur waaw ñaanal aussi bépp waajo mo dund ba lépp li nga xam ne seen doom yi mëbal nañ ko si moom rek mu eggale ko wallaay ndeysaan ci barke Serigne Saliou Mbacké sama xol dafa fees est ah, <laughs> borom jurub wallaay ndeysaan jàppandal borom jurub ak jàppandal wallaay <laughs> xel comme jàgg goto mbuur waaw sëriñ Saliou boo fa jaar seena boo fa jaar waaw seena boo fa jaar waaw di ko bëggee nag bu baax di ko bëggee bu baax vraiment <laughs> mel ni am na foo tolloon euh, yeggaleel ndaxte am na foo tolloon fu am solo waaw xam nga euh, loolu mhm. tey bu ma ko doon tënk rek mhm. euh, doom ji baax mhm. te am yaay ju baax ko ni baay ju baax ko tànnal yaay ju baax doom day fier ci wax ci moom doom day boobaa day sawar ci wax ci moom da koy doon moom mooy comme si je mooy dama la doom ju baax ba fu mu taxaw ñu xam ni kii ay jikkoom kii doom ju baax la mhm. bu tombeek yàlla suturaal ko mu am yaay ju baax mhm. na gërëm baayam mi ko wutal jigéen ju baax wallaay ndeysaan te mbaax yooyu mhm. mooy waral doom ni munuma laa fay yaay wallaay ndeysaan doom bu toogee ba si yàgg mel ni lu explosé ay yaay yaay munuma laa fay parce que bu ko neexoon ba mu juddoo laata muy wàcc taabal ja dina ko làggil dina def ci moom loo xam ay handicap lay doon ci àddunaam mhm. mais yaay patalu la yaay làggilu la mhm. yaay di la dundal mhm. di la toppatoo école di fexe ba say nawle duñ la gën ci lenn yow nga màgg woon ginnaaw yaay kuy gërëm yaay yow doo ci bokk wallaay ndeysaan yaay bu fekkente ni la war ci doom def na ko ba yow foo aw du wax lu ñaaw mukk ni sa yaay ko fi def say nopp kon yow jom nga war a sa bopp ngir ëllëg sëy boobu nga tekki ko ndax nga dégg mag naan takk nañ sëy bi waaye la koy tekki ba ëllëg lu ñuy def xaar jëmm jooja ca doom ja lay doon moo tax ma naan munuñu laa fay yaay booy uhuh. xam nañ ni ci ay jamono uhuh. yaa daan njëlu di taal muy liwit nga ne ca liw mooy sedd yoo xam ni pour nga génn sax boo dootoo ko ñeme mooy liw mu am na ko nekk ci kër gi nañ ko jël moom moo indispensable salaamaaleykum soxna si yokkal baat bi asalaamaaleykum na ngeen def Thiamas maa leen di nuyu bu baax baax. ñu ngi lay delloo fay di la fay bu baax. Mm, dama woote woon pour wax ci jëfu yaay pour gërëm sama yaay bu baax. loo gërëm sa yaay doyut gërëmal. Mhm. <laughs> parce que man tamit day nekk ay xale nekk ak sama yaay mais ñu gis yaay. Oh sama yaay dund na ba nekk ci sëy. Mhm. Mhm. lu nekk ñun dañuy bu nekkoon ay xale dañuy toog jàkkaarloo ak moom sax xam ne suñu yaay mu ngi dund lii. Mhm. mais suñu xol daf doon tooy. instant yii mënuma sax wax mais en tout maa ngi gërëm sama yaay bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan maa ngi gërëm sama yaay bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf merci. parce que bala ngaa xam liggéey yaay li muy jëriñ ci doom. dëgg la nga soriwante ak sa yaay. ak liggéey ci doom. nekk ci ay situation. Mhm. bu dee doo nga jërëjëf gërëm si na nee na nee na nee na mënumaa wax nee na wax waaye maa ngi gërëm sama yaay maa ngi gërëm sama yaay wax ju tëj làmb la <laughs> fi ne nii maa ngi gërëm sama yaay rek dafa doy sëkk tout à wax waaye maa ngi gërëm sama yaay dafa doy sant na yaayam gërëm na ko bu sañoon day décortiquer wax fi mu jaar ak yaayam li mu dund ak yaayam mais maa ngi jéglu euh, fois dafay exploser il faut comprendre. ñi ngi ah, exploser ah, message yi message yi exploser vraiment mais des ni émission bi tëddee. waay waay euh, am opportunité bi. wax lépp ubbi ubbi message yëpp yëpp yëpp. vraiment vraiment mais kenn ku nekk na jàpp ni. agsi na. dëgg la te la semaine ah. dëgg la la semaine. absolument on est là pour anticiper. Mhm. mais sachez que à minuit. déjà nous y serons. incha allah nous allons maximum. absolument leen rappeler que. Ndéla Amar aussi ah. du moom. Oh. yaayam maman Aida. dafa jël loxo Ndéla teg ko ci sama loxo ni ma dénk naa la. la ilaha donc maman Aida li ma dénk ak a neex a yor. waaw waaw déggal na. yaru na te boo koy seen reeje nga njëkk a gis. man maa ci xam dara man mi mujjee ñëw de loolu loo ko yaree la man. maa ci xam dara man mi mujjee ñëw mastam ak yow mi nga xamante ni. Mhm. Euh, dëkk nga ak moom lu yàgg. mais dëgg waay waxal waay. Ndella Amar moomu barki. du ma di euh, caaxaan. moom boo ko xoolee. Uh-huh. jàmm rek ngay gis ci moom. dëgg kon leer na ma ni yor na. dugg naa de waaw waaw man ay na kenn du moom. <laughs> ne ko allo salaamaaleykum. allo. allo. mais ñu ngi leen siyaar bu baax a baax. waaw ñu ngi lay jëlloo siyaar. mais yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi sant bu baax yéen kay lañ koy laaj ndax yéen a ngi ci jàmm. oh là dem na. <laughs> waaw mais dafa am lu ma xaw a jaaxal. muy lan man j'ai une fois rencontré une personne mu may relater benn histoire ni ma. toog ba saa ngi ne woon non maire bi dangay ngay waaru quoi maire bi dafa sonn la trop. dëggal li ma ne ko lan moo tax e souvent kàdd googu dafa bari bari ay jeunes. sama yaay dafa sonle mhm. sama yaay daf ma fat mhm. ah, mais nag mu muñal ko rek mhm. moom mag la léegi mu jeexal donc léegi ñu jàll ci leneen yow boo koy wax man dama damay tiit ci yow la ilaha illallah parce que ba nga juddoo mënoo dara sa yaay ak yow ci digg lal bi ñu lay laytaay mënoo tourner sax ci laal bi dañ lay tourner dëppaat la defaral la euh, nuutati ngemb boobu couche la ngay dem ba li nga bëgg a def ci ngem bi nga koy def yaay di ànd ak yow bu sa yaram tàngee xaaju guddi ngay jooy mm-hmm. yaay dootul nelaw boo jaaxlee yaay jaaxle na mm-hmm. doo xiif yaa ngi sëgg ci ween wi nga nekk cuux mm-hmm. ne ci ginnaawam ñaw ko ci mu boot la di daw dang nga dem ba màgg naan sama yaay mi ah, kenn mënta dëkk ak moom yow yaa waroon a xalaat ni am nay jamono kenn mënta dëkk ak yow sa yaay rek dëkk ak yow jël am na ci ligne bi jël ko salaamaaleykum waaleykum allo allo waaw ku baax naga def waay waay ziar naa leen ñu ngi lay delloo ziar yow la kan waay man la Alaaji Waali Alaaji <laughs> Waali sama xarit ziar naa leen bu baax a baax ñu ngi delloo bu baax Alaaji suñu xarit wallaay suñu xarit nit amul lu ndayam dëgg la wax ko ca kaw wax ko ca kaw gis euh, na hmm. allahu akbar Euh, tey àdduna dafa jeex ba pare. Mm-hmm. lu dëgg la. tey dégg man yërëmuma kenn ki ñàkk yaay laa yërëm. dëgg la. Mm-hmm. doo dese kenn yàlla rek ngay defee. est dégg naa dëgg de. te da dégg lu nekk. la sa yaay daan muñal dootoo ko gisati. wallaahi wallaahi. moo tax tey lépp ku may ñaanal képp ku ci yaayam génn àdduna maa ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko. Mm-hmm. amin waaye amin yaa rabbal alamin parce que àdduna benn suba ak ngoon la mm-hmm. benn guddi ak bëccëg la moo tax tey dama koy ñaanal ñëpp képp koo xam te ni yaayam génn na àdduna mm-hmm. man tey jii nii ku dul sama yaay lay ndeysaan est bari nga ciy moroom man yaay rek laay gis <laughs> bari nga ciy moroom lay ndeysaan man demoon naa ba bu yàlla naree jëlee sama yaay ci àdduna mu jël ma man bàyyi ko fi. la ilaha illallah allahu akbar ndax man daa foor ci man. parce que gis nga waay li mu daj. mën naa ne bàyyi sax daju ko. dëgg la wax ko ci kaw. tey mën naa ne tey yaa jiboon amul. lu am du nàmpal. la mu waroon def ci yaay ja def ko ci yaay moo tax kenn du yaay. moo tax yaay ji day dem ba noonu lay ndey ji day dem ba indi leneen. wallaay ndeysaan. Mhm. léegi loolu lay doom ji du roy. Mhm. moo tax ñu naan doom ja ndey ja. dëgg la. moo tax bàyyi kenn du ko ci nit ñi. Mhm. bàyyi day xëy rek jox la dépense ne la dem na. wallaay ndeysaan. yow yaa koy nekk di boot di roggante di def lu nekk. wallaahi. moo tax nit ku nekk war na respecté yaayam. parce que yaay mooy sa àdduna mooy sa lépp. bis boo ko amee mm-hmm. am nga mm-hmm. moo tax bu buñ demee ba daje fa kenn ku nekk sa bopp ngay dal mm-hmm. sa liggéey nday mool fa mën a jële ak li liggéey ci àdduna kon tey damay ñaanal ñëpp daal yàlla defal leen jàmm jërëjëf amin amin waay képp koo xamante ni nii yaan génn na naa ni ñoom leen bàyyi xel euh, xam naa ni seen xool tamit tooy na parce que tey nit ñi wax ci yaayam wër na yaayam mi ngi ni toog mhm. yow nga xool gisoo sa yaay mhm. nga xool gisoo sa yaay nit ki di wax ci yaayam lu rafet yow nga xool góos xool gisoo dara rongañ rek moo fi mën a tuuru mhm. kon tey ñun ñàkk yaay yal na leen yàlla sàmm amin waay li wax foor na trop oh. amin waay yal na leen yàlla sàmm amin waay amin yaa rabbal alamin yal na leen yàlla blanche nga noonu noonu toog waaw waaw Mm-hmm. yéen tamit li ngeen di def yàlla na ko yàlla lawal muy law ba faaw. amin sunu xarit amin amin ziar naa leen bu baax a baax. delloo nañ la ziar merci <laughs> merci beaucoup. jërëjëf gërëm nañu ko moom El Hadj Waly. Mm-hmm. waaye di leen rappeler que téléspectateurs yi tey plateau spécial euh, par anticipation baat ni ma ko mën a waxee. Mm-hmm. Euh, spécial euh, fête des moom Euh, parce que fi mu toll nii anticipation la li des ci minuit bareetul mhm, mhm. il est minuit mi ngi ñëw bientôt incha allah àndandoog yéen ci euh, plateau spécial fête des mamans mhm. euh, bu ko defee kenn ku ci nekk mën a wéy di àndandoog ñun ci soirée bu neex di souhaiter mamam bonne fête des mamans di ñaanal yaayam suñu borom yàlla yàgg ko bàyyi ci kanamam ak bànneex di ñaanal yàlla yaayam suñu borom yàlla xaaree ko na ci bànneex waaye nag ñu bëgg ñu xool waa il est kii lu mu tudd Euh, waa nuit blanche. waa nuit blanche ñoom ña nga toog waxtu wi di ñu bàyyi xel. ña nga toog di ñu xaar ma xool Omzo Omzo moom naka la toogee. nañ fa dem. Omzo noo def ah ok moom ma nga toog ba tey Omzo nga toog. ak eh, Adja. Amama. Mbay Dollar a mhm. nga ca ginnaaw. moom moo nekk ci barade bi waa Nuit Blanche ñoom seen plateau bi sax dafa yaaññi. Eh, en tout cas je vous invite hein, ah. surtout il faut rester toujours avec les programmes de Walfadjri. ok à partir de minuit di ngeen gisaat leneen. beneen affaire la ñuy gis <laughs> beneen affaire ah. beneen affaire la ñuy gis mais dama am sama benn jigéen bu nekk ginnaaw raay. mi ngi uh-huh. envoyé SMS. Uh-huh. Euh, moom mi ngi tudd Daba Sène. Daba donc euh, di ko souhaiter yaayam maman Ndeye Thiam. Uh-huh. ak képp koo xam ni yaa ngi ginnaaw raay foofu bëgg uh-huh. lool sa yaay uh-huh. uh, à travers Daba Sène suñu xarit uh, ñu ngi ko koy yóbbante uh-huh. di ko yóbbante nee na mi ngi koy yóbbante yaayam di kontaan ci moom bu baax a baax a baax uh, ku ci mel nit sama ñaareel alaaji Ndiaye Guèye mi ngi kontaan ci moom Khady Sow <laughs> di ci moom bu baax yaayu Serigne Fallou actuellement mu ngi mi ngi Italie waaye mu ngi souhaité bu baax que Sénégal nee na na fi jàmm rek di am. amiin amiin tant que jàmm ngi am rek. Mm-hmm. lu ñu song daan ko. lu ñu song daan ko moom loolu dama ko gëm te gëm mm-hmm. naa ni yaay yi nga xamante ni ñu ngi ci rey na ñu yaay yu baax yi fi nekkoon démb. Mm-hmm. ku ci mel ni Mame Diarra Bousso. Fawad du Wele. ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni woon ñi ngi fi woon. Euh, jàpp naa ni boo leen ci ñoom. di ngeen am jikko ju baax di nga am melokaan wu baax. ñaanal bépp yaay boo xamante ni mi ngi fii ci àddina. am rawatina nekk fii ci Sénégal mu mel ni gars yi toog nañ de wallaay gars yaa nga toog <laughs> Omzo nga noonu toog Adja la feggool ak Amama Mbay dollar moo nekk ca ginnaaw Mbay dollar moom <laughs> dollar yee bari dollar yee bari dollar yee bari am na ni fois damay jox penalty xam nga ñoom mhm. dañoo war a def euh, plateau bu am solo tout à l'heure juste lépp dinañ ko gis en direct. di bëggee Mamika nag. Mamika waaw macha allah vraiment euh, vraiment. xale bu am jom raffiné et puis elle a sa ligne. xale bu am jom et puis euh, la tête sur ses épaules. damay sawar di wax ci jom ji xam nga pourquoi. Mhm. Euh, dama ko gis ak. ko gis ak doxalinam. Mhm. dama ko gis ak melokaanam ci jigéen. Mhm. ju am Pastef. ci jigéen ju am ambition ci li muy def. tout à fait barki Serigne Bamba. dama koy xool dama yëg sama bopp ci moom xam nga lu tax mm-hmm. parce que dama bëgg góor bu am jom rawatina jigéen mm-hmm. boo nekkee góor man fu ñu dajee ci couloir bi waaw góor laa koy wax tout à l'heure dama ko gis waaw kumba waaw góor rek tout à dama ko gis mm-hmm. mu yenn ay bagage moom rek ngir bëgg bëgg lépp rafet kumpa gi daal ku mu ko xoolal ku ci bëgg a deñ uh-huh. minuit bu la dara romb bu la dara raw <laughs> mais man des dinaa jëf euh, carton rouge ah uh-huh. pour ceux ñi nga xam ni uh-huh. dañoo judd ci seen euh, peggu yaay uh-huh. judd ci seen keru yaay uh-huh. seen yaay di leen toppatoo ba ñu uh-huh. màgg ñu dem am soxna wallaahi jël seen soxna dem beru ji ci beneen appartement bàyyi ba par ay dimanche wala fin mois addunaa leen jay kër ah, benn benn paquetu warga ah, benn potu café alors foo jëm non non non je vais aller rendre visite ma maman dañuy yendu ji kër mère bi alors que yow transhumant nga wallaahi ndeysaan yow da ngaa war a delloowaat la la sa yaay daan defal ba nga tokkee tout tànk tey ba nga demee ba màgg danga ko war a uuf gunge ko Mhm. ñooñu dama leen di wax ni mention spéciale à ñooñu. vraiment mais carton rouge pour ceux qui montrent le dos à euh, dëgg-dëgg li mu wax ni c'est important c'est mhm. très important papa yi amuñu seen fay. Mhm. waaye fête des mi ngi ñëw bientôt. incha allah ñu ñëwaat ci bu ko defee ñu rendre leen hommage bu baax waaye nag gërëm nañu képp ko yaay ku toog waxtu wi vraiment yaay yi ñu ñi envoyé message yi bari nañu maa ngi jot ay bataaxal yu bari. lu jëm ci côté Tugal. Mhm. fële nga xamante ni moo di ca États-Unis mhm. euh, ki nga xamante ni moo di euh, Serigne Ndiaye moom ma nga ci États-Unis waxtu wii di ñu mhm. bàyyi xel. Euh, mi ngi ñu yónnee bataaxal di ñaanal yaayam tuñu borom yàlla yàgg koo bàyyi ci kanamam. Baara moom it tamit mi ngi fële nga xamante ni moo di ca itali moom ak njabootam ak soxnaam. ñaanal suñu borom yàlla yàgg leen taxawu foofu moom itamit mi ngi ñaanal yaayam suñu borom yàlla yàgg ko bàyyi bu baax a baax ci kanamam mu ngi fii jamono ji ci euh, Sénégal euh, yaayam waaye nag gaa yaa nga toog mhm. waxtu wi Omzo ma nga toog euh, Ama maa nga toog mhm. Adja ma nga toog Mbaye Dollar a nga toog mhm. ñoom seen plateau bi sax dafa yaañ bi macha allah war nañ fa waxtaan waxtaan bu am solo en tout cas ca kanam tuuti il faut pas zapper. ba tey dañuy resté ci concept bi. waaw mais sànq da ngaa dugg Europe. Uh-huh. te bu ma ñoon congé bii ñu dëgmal. Uh-huh. ñu jëlandoo ko ma ak yow. man ak yow. waaw parce que waa Almeria dinañ ñu fa xaar muy Espagne. ah dëggal li donc euh, ñoom entre. ok mais tamit euh, Ndeye Astou Aaj boo demee États-Unis Ndeye Astou Aaj mu euh, baax daf ñu fay xaar ma nga ci états euh, donc boo duggee tamit itali ok ñoom Pape mbaay xam nga Île Cagliari yi wallaay ndeysaan wallaay donc j'aurais beaucoup aimé que ñu def benn tour a travers ces grandes personnes yu bëgg Walfadjri bientôt donc ne leen xaar leen ñu uh-huh. incha allah uh-huh. foofu la ñuy dalloo kon bientôt xaar leen ñu. Mhm. même bu ñu ñëwee pour dalu sax parce que tax may wax de. TNT bi moo tax ñuy wax bu ngeen ñu woowul it ñun dinañ ñëw. ñun dinañ ñëw moom <laughs> mais bu ñu bu ñu jëlee congé. Mhm. pour ñëw foofu man ak Diamas ak ñeneen. Mhm. Euh, ca ca France lu ci mel ni euh, Italie wala États-Unis lu mu ci mën mënti doon. àndandoo ak yéen mhm. lii ñuy def fii ci Sénégal dinañ ko partager ak yéen foofu ca dëkk ba ngeen nekk très bientôt maanaam ñëw foofu mhm. def ak yéen ay émissions yu am solo mhm. bu ko defee ngeen mën ko ci ngeen mën ci gisaat seen bopp fa ah, Walfadjri la ñu wax mais depuis euh, RCM bi boo seetloo. TNT mhm. gars yi dañu am absence bi. ah bien sûr déjà mi ngi mel ni rek euh, ki war a nàmp te gisul weenu yaayam. ah oui ween woo ko tàllal du ko nàmp. wallaay ndeysaan kon nag xaar leen ñu di ngeen nàmp ba doyal. wallahi <laughs> bientôt lay doon. incha allah ci euh, pays étranger yi. Mhm. incha allah dinañ fa ñëw bu ko defee ñu àndandoo ak yéen ci lépp luy programme yu riche. di leen rappeler que ñu ngi ci seen plateau Before Minute. min wi xam ngeen ni muy demee tous les samedis ñu daal di toog man ak Thiamas àndandoog suñu invité bi nga xamante ni moom la ñu invité waaye tey suñu borom yàlla dogal na ni mhm. ba tey nii jotagu ñoo invité eh, dalal suñu invité mhm. waa Nuit Blanche ña nga toog waxtu wii di ñu xaar ña nga ci studio bee waxtu wii toog eh, kenn ku ci nekk di ñu xaar ngir ñu jox leen antenne bi ñoom it tamit ñu saafonte ak ñun eh, en direct bu ko defee ñoom it tamit ñu waxtaan ak yéen ngeen saafonte ak ñoom bu ko defee ngeen mën a dugg en direct ñoom it euh, di waxtaan ak ñoom ci euh, thème bu am solo boobu nga xamante ni euh, moom la ñu jël xaaral ma yoon teg Omzo xool naka la toogee Omzo maa ngi lay nuyu. ah seen seen seen plateau bi yaa ñu ne de te taaru ah, jekk na jekk na jekk na say ñaari jigéen ama maa nga fekk goog yow. Euh, Adja a nga feggoog yow fi mu toll nii gëm naa ni seen waxtaan ca kanam tuuti dina na a euh, neex. Omzo dina gën a neex Padros. comme ni ko waxee rek. ñu gërëm bu baax a baax. ok. di nuyu ndaaraan bi nga toogal suñu kilifa googu. Caamaas kenn du moom. <laughs> <laughs> maa ngi bu baax a baax. ayca waxal ak moom est-ce que kooku noonu kooku noonu moo ma njëkk a jox. ci moom doyut ci rajo. est-ce que. <laughs> man koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax. vraiment vraiment. di ko yàlla. dëgg la lii moo nekkoon suñu yéene rek. wallaay. alors Omzo euh, ca kanam hmm? tuuti ngeen nar a waxtaan laajal ma ko ki solo jaune la jaune bi ni mu toogee ci wetam. Hmm. ajaala ah. xam nga ci wetam toogin dàqu ko. xam nga moom naar la. macha allah moom sëtu yonent bi la xurey si nekk xaas yi ni kii laa yoloo eh. na mu toogee toogaayu naar la. Eh. boo xoolee dafa defee nu ca kaw ca kaw fauteuil ba. ngeen nu mu tudd. ah ay dara karaara xurey si nag xaasi ni kii laa yeloo wax ko ci kaw surtout yaa rasulillah la bëgg nañ ci moom Adja bëgg nañ ci <laughs> waaye nag sama rakk ji sama rakk ji la feggoon <laughs> nuy naa la caamaas waa fay naa la fay naa la fay naa la bëgg naa la bu baax a baax rafet na waa yow kenn du yow En tout cas, dans moins de 20 minutes, euh, nous allons vous l'antenne. Euh, parce qu'il fera minuit. Wow. Et euh, vous pourrez encore jusqu'à présent donner vos dédicaces et Bien vos sûr. souhaits Bien surtout parce que euh, dara gën a fort yaay de. dëgg te kenn du yaay. wallaay ndeysaan fi doom yi di rawante <laughs> ci ndey <laughs> man de bu ma neexee ma ni fi ma rawee samay morom yëpp ci ndey la. en tout cas du ci man de. ba léegi sama sama bopp dama koy teg ci sama pooju yaay. c'est important. waaw parce que j'ai pas ce complexe. ah man de ñoo xam ni kersa rey na leen. sa bopp nga xam fekk ma sama kër xam nga dama ne woon su ma jëlee congé damay dem Arabie Saoudite ci sama yaay. Uh-huh. ca këram nga uh, dallu ak moom. Uh-huh. ba ca kanam. bu ko defee sama xol gën a gën seddaat. Uh-huh. ndax gëj naa ko gis quatre ans de cela. waaye nag jàpp nañu ni xool day gisee ndax bés bu yàlla suñu borom sàkk danañ déggante à travers euh, téléphone bi nga xamante ni tubaab sàkk na ko. ak i tamit euh, internet bi nga xamante ni tubaab sàkk na ko mhm. kon nag sant naa yàlla bi nga xamante ni suñu borom yàlla mi ngi koy bàyyi ci sama kanam rek saa yu ma mhm. xëyee suma teel di am ay mhm. waaye nag euh, ca kanam tuuti. dinañ jox antenne bi waa Nuit Blanche. bu ko defee ñoom tamit ñu wax ci seen yaay. mais sachez que it euh, l'événement oblige. ah bien sûr ah c'est la fête des mamans. absolument et sachez que it il y aura maximum d'invités. en ce qui le concerne. bien sûr waaye ngeen xam bu baax ni. Eh, suñu yéene mooy kenn ku nekk fa mu toog wéet mu ngi taalifal yaayam ah, ah, ah, di def ay poème yoo xam ni mhm. eh, bu ko yaay liiree boo muytul mu jooy parce que xaar lu woon ni doom àgg na ci maturité bi nga xam ni tey yéene ni yaayam moo mhm. am nag benn poème boo xam ni mhm. bëggoon naa ko lancé à la face du monde ayca c'est parti lii doom la tekki di gërëm yaayam doom ji dem ba màgg tekki di gërëm yaayam muy caamaas mu ne Euh, jël naa ko nag jox ko doom yi nga xamante ni yëpp bëggoon nañu tey toog ci sama place. ci sa place. yëkkati kàddu yi delloo ko seen yaay. xoolal ma fuurit bële. ah fuurit bi yaa ngi gis. non mais Omar Omar xanaa. non gis nga fuurit bi na may fuuree noonu. moom Mauritanie lañ ko formé wala. non fuurit ba na muy fuuree noonu. <laughs> gis nga fuuritu ataaya ba ni muy fuuree. waaw noonu la sa kàddu gi di fuure mhm. kon ku sañoon toog fii nga toog wax wax kàddu gii ngay bëgg a wax. dama bëgg nga wax àdduna dégg. as mënuma laa fay yaay booy. coono yi nga daj say dukk-dukk say dang-dang kumpuma ndax misaal mi dama koy gis ci jeneen yaay yaay xam naa ni bu naaj daan tàng yaa ngi daan ñu boot ñu ñal ko sa digg ginnaaw doon cuux ngay dang-dangi ci liw ngay taal di ñu jox ñuy lekk yaay maa ngi lay ñaan dig wi la xajaleeg say noon ngelawaay bu ko jéggi mukk doonal yaay ji nga xam ni mooy jiy roy doonal yaay ji nga xam ni ëllëg doom da koy bëgg mu yaay waaye te du ma rëccu mukk lu ma ganee àdduna ndax yow seetaanoo ma gëmoo ma tëxoo ci man boo ngir màggal lu ma bëgg màggal yaay xoole naa la bépp yaay ni may xoolee yaay yu baax yi nga xam ni ah bu guddi jotaan xaja du leen mbaw benn yoon amul nu ma bëggewul ci yaay yaay jëlal sama yaram dafa daw <laughs> toujours sama yaram dafa daw. Euh, may nañ ko yaay ju baax sama yaram dafa daw barki Serigne Sall. may nañ ko bépp yaay. may ko ah. sunu yaay aminte bu baax a baax man de gis naa ci sama bopp. dafa am yaay yoo xam ne xaj du leen mbaw mais am na par contre yaay yoo xam ne xaj yaa ngi leen di mbaw ba léegi. nañu defaraat jikko yi te xam ne bu ñu sañoon seen doom yëkkati seen kàddu gërëm leen. seen c'est important. ndax magasinu yàlla la yaay. Mm-hmm. jigéen la. ndabal yàlla la moom ca la mu nekk ci jikkoom sax soo ci meree ba tuur ko baa nga def ko lu ëpp ci métital danga koy gis ala kulli xaal en fait moo tax ñu ni jigéen du ku ñuy toroxal rawatina nag ki nga xam ni dalaa teral ba nga màgg kooku waroo toxu mukk di ko toroxal duma wax ci yaay dama naan ci jigéen mhm. képp kuy jigéen na nga xoolaat sa bopp ci jëf ju rafet surtout surtout ndaxte yaay way mbay bay way na mbuus ba noppi mhm. laataa ngay nekk yaay jigéen ngay doon doon xaleel bu ndaw lu mu ci mënti doon xoolaatal sa bopp ci jikko ju rafet mhm. xoolaal xoolaatal sa bopp ci melokaan mhm. xoolaatal sa bopp ci jëfin ngir boo doonee yaay mu mën a law ci say biir doom ba tey ba tax na tey su ma toogee fii dinaa sawar ci wax ci yow kum ci mënti doon caamaas wax na ci léegi su ma ci waxee day doon répétition jaratu ko jàpp naa ni wax ji law na ba noppi wër na àddina te kenn ku ci nekk dugg na ci sa biir xolu ndey mhm. te tamit dugg na ci biir xolu yaay yi dugg na ci biir xolu doom yi toog waxtu wi di ñu bàyyi xel gis nga ko jëmm joo gis rek jigéen a ko jur dëgg la tey bu ñu nekkoon ci réewum ni mhm. pièce ci mhm. ñi leen ni ku juddu rek da war a am passeport mais sa ne veut pas dire ñëpp a yëg ci avion bi. wallaahi ndax il faut sa passeport am visa. Mhm. yaay ju baax nag noonu la mel ci doom. wallaahi ndeysaan day mel ni visa. Mhm. est-ce que ñi lay gunge yëpp te seen mhm. passeport amul visa. maanaam seen yaay liggéeyalu leen ko. ci aéroport ba la ñuy yem. wallaahi ndeysaan mais yow di nga dem ba ci tartan bi. di nga jël escalier bi di dugg ci avion bi. parce que yow mi am visa. day yomb nga yéeg avion voyager. kon nag doom ju baax. na la ko sa yaay teel a liggéeyal. mooy tax sa sa visa. réew mu la neex dem tukki. la ilaha illallah doom ju baax bu xisee ba baax fu mu mën a dem dafa yaay moo la yar wala sa maam moo la yar waaw euh, fekkee naa sama jamonoy maam mais ni sama yaay def ci man amul benn jigéen bu ko def ci man sama yaay en fait duma ci bëgg di wax mhm. ndax doo diligente émission mhm. day am loo xam ne xol la dëgg la nit nit rek la dëgg waaye que yaay joo xam ni jaral na lu ne bàyyi mhm. di toog ci keppaaru bàyyi mhm. di wéy ci ndigalu bàyyi mhm. ëllëg ci biirum njabootam lu ci am mbugal mukk doon xool bànneexu doom looloo waral mu doon def loolu yëpp bien sûr ba tax na ma ne tout képp kuy jigéen xoolal ca sa ndey ci jëf ju baax tout à na ay yaay ba tey ñu ngi xaj mi ngi leen di mbëw am na ci ñenn ñoo xam ni ba léegi xaj yaa ngi leen di mbëw xaj bu dee mbaw sa ndey expression boobu xaj bu dee mbaw sa ndey ah. maanaam kum mënti doon ah. ñu baal ma ci kàddu yi ni ma koy waxee mhm. xaj bu dee mbaw sa yaay mhm. euh, lu mu ci mënti doon bul xool jikko jooju xoolal mhm. jikko ji baax ji nga war a roy ci moom te di waxtaan ak moom c'est important yaay nawle la euh, te it am na foo xam ne mën ngeen a wéet nga naan ko yaay man de damaa gisoon nga doxee nii wala nga defee nii doom dina jubbanti yaay ba yaay doon royuwaay te doom day xam ne am na lu mu def ci moom yaay kenn du ko finati mm-hmm. mooyu déedéet ak nu mu mën a mel ba tey ci biir yaay dëgg la ba tey mën nañoo ibil téléspectateurs yi antenne bi ñoom ñu wax conclure ñu conclure vraiment ah ñu conclure euh, before minuit bi juste après ñu doog leen jox en direct Omzo Amama mm-hmm. ak euh, ki nga xamante ni moo di euh, Adja. Mm-hmm. Mbay Dollar nga toog ca ginnaaw teg ataaya bi ci nuit blanche. Mm-hmm. moo teg meew bi teg ataaya bi ca kanam tuuti. incha allah mais man maa la ko ñaan ah, personnellement. parce que tu es mon frère. vraiment et parfois dans magazine. dëgg la <laughs> uh-huh. mu am les dernières cent minutes. Uh-huh. j'aurais beaucoup aimé que. ñu break loolu. ok ñu laaj leen. parce que tey euh, l'événement oblige. absolument ah, on anticipé mhm. before minuit mhm. mais mais mais Cheikh Tidiane ñu ñu indil ñu waat chaise bi mhm. ñoom ñu wax ñu kan lañ bëgg samedi mu toog fi ma ngoog pour montrer que ni ñun ñoom la ñuy wéyee ñoom la ñuy wéyee <laughs> te koo leen bëgg rek ku ñu bëgg. dañ ko wax su ñu amee trois personnes yoo xamante ni. ñaar ñee ëppale kenn ki. voilà que ñu ëppale moom la ñuy teg fii. ma ngoog pour wan leen ni que Walfadjri dafa am nu muy doxee. li ngeen bëgg loolu la ñu leen di defal. Mhm. ku mu mënti doon ci Sénégal. donc ku wooteeti ci ligne bi. Mhm. dañu bëgg rek nga wax ñu kan mooy toog fii samedi prochain. en direct ci before minuit. 88 628 99 99 ngeen def appel def 114 bu ko defee nga mën a agsi en wax ki nga bëgg mu toog fii. gaaw 3 jours. trois du soir rek fët fët ma ngoog fët fët ñoom xam nañu uh-huh. ñun xam nañu kan ngeen bëgg mu toog fii te loo ci xamul uh. ki bëgg mu toog fii allo uh. allo allo allo allo <laughs> kooku jël nañu la jël nañu la ok c'était pour conclure ci yaay mais yow uh. samedi prochain kan nga bëgg mu toog fii <laughs> samedi hmm. ah nga wax de <laughs> man sama sama sama jàll na kan la woon kan la woon. Oh, ah. <laughs> bari na ci morom <laughs> bari ci dem moo njaay toj na àddina. bari na ci morom à travers <laughs> eh, loolu yow koo bëgg mu ñëw samedi. allo. oui allo bëgg mu ñëw samedi temps bi ñu amoon euh, mi ngi jeex. voilà nañu jël beneen outil rapidement. ba tey ah, ñi nga xaar keneen Euh, pour vous dire que it, euh, les invitations sont là. waaye okay. ce sera sous votre demande. bien sûr bien pour prochain incha allah kan mooy toog fii. te loo ci xamul. Hmm? ki mu bëgg mu toog fi bu toogee fii. waaw. man ma toog fii. waaw yow nga toog fii. waaw dina la feggoog yow fii wala mu feggoog yow fee. eh Padros sa ko ci yokk. maa ko ci yokk donc <laughs> na samedi prochain ki nga xam ni yaa wax mu toog fii ngeen gagné ko boobaa da xam nag kuy toog ci fauteuil bi. samedi prochain. <laughs> wala ngeen proposé ñu kan ngeen bëggoon mu toog fi samedi prochain allah ko leen ko leen proposé rek rapidement les secondes passes dinañ def tout incha allah ba dalal ko fi bu neexee suñu borom yàlla mhm. ngir bu boobaa ngeen saafante ak ñoom ku ngeen bëgg rek mu bëggal leen waaw ah, ku ngeen bëgg <laughs> salaamaaleykum maaleykum salaam yokkal sa kaddu yokkal sa kaddu rapidement maaleykum salaam ay ca ko ko question bi ma ne Dieng Saala doomu ndeyu Caamaas. Dieng Saala doomu ndeyu Caamaas. wala ma ne nit eh, oh, ak i noppam. ak i tànk ak i tànkam. am <laughs> na booy may waa Sénégal muy. ay. wuyu ba. <laughs> waaw mais Dieng Saala kan nga bëgg mu toog fii samedi prochain. Alioune Mbaye Nder. Alioune Mbaye na. merci coupé sa téléphone. jërëjëf 88 628 99 99 ngeen ba 114 ana keneen dugg gaaw. ayca bu dikkee ñu jokkoo ak moom ba tey mu mën a wax ci li nga xamante rapidement rapidement kan ngeen bëgg samedi prochain mu toog. ma waaw. <laughs> fëgg naa. Ah. allo. salaamaaleykum ah? prochain koo bëgg mu toog ci fa bi. jaar nañ leen màggal nañ leen yéen ñu toog comme jërëjëf waay bëggee bëggee Seydou Walfadjri la Sayar laa tudd fekk samedi ma woote samedi passé woote naa. waa kan nga bëgg mu toog fi samedi. samedi Kumba Gaw la fekk. Kumba Gaw. merci. ma ne téléphone bi merci beaucoup. alors ba tey ñi nga xaar keneen bu dikkee mun mënuñoo jël cinq bu ko defee dañuy xam trois yi fu mu féete. léegi cinq euh, rapidement parce que ñu ngi signalé ñu minuit jot na déjà. ma ngoog ah teg ci yoon. ma ngoog eh, na gaaw dugg na gaaw. ban heure a jot te sa téléphone. ba déjà am nañ Kumba Gawlo la ñu proposé ak Alioune Mbaye Nder il fait moins cinq ah. ma ngoog moins cinq. salaamaaleykum. moins deux on libère l'antenne. 88 628 99 99 114. nga ah, ciy teg pourtant yokkal sa voix ñu dégg la. neel allo allo. ayca kooku dem na ñi ngi xaaraat keneen. ba tey jox ñu da nga jox ñu. ma zoomel bi allo. soxna si kan nga bëgg mu fii di samedi prochain incha allah. ok tur bi naka la. <laughs> Ami Diouf Rufisque. Ami Diouf waaw bu dee Abdou la préparer sa passe. ma ngoog bu ñu amaatee keneen. keneen ci Abdou Guité <laughs> Abdou Guité Seck. ba léegi amuñu kenn ku dal de. te kooku bu niroo léeg kële rek. ci kooku la ñuy kon ma ngoog ok salaam tur bi naka la ak kan nga bëgg mu toog fii samedi bu neexee yàlla kii Alioune Mbaye Nder Alioune Mbaye Nder dëgg il est mentaliste. <laughs> merci beaucoup bal bi tàkk na bal bi tàkk na cinq téléspectateurs yaa ngi kon Alioune Mbaye Nder. Alioune Mbaye Nder foo mënti nekk waxoon naa ko fi Papa Ndiaye coppet muy maire. waaw eh, ci télé bi direct dama ni. direct la invitation bi direct. invitation bi direct du man du Padros. <laughs> ah oui c'est à la demande générale des téléspectateurs. bien sûr kon nag Alioune Mbaye Nder vous êtes averti. bien sûr samedi prochain askan wee la soxla fauteuil bii. Mariki allo. waaw allo. kii day ñambaas day ñambaas Alioune Mbaye Nder lañ choisir. na ñambaas waaw ñambaasal. <laughs> yàqul ku baax na def. maa ngi fi. ay dagg na. Euh, fi ne nii nag. Mhm. faaw ñu conclure. waaw parce que il faut ñu dem ca Omar. ma ngoog Omzo nga toog xaaral ma xool Omzo naka la toogee waxtu wi Omzo. allo Omzo. waaw euh, fi mu ne nii ataay bi fu mu tollu est-ce que pare na ñu ngi ñëw de. waaw ataay bi ki ah, nekk nii ñu ngi ci ñu ngi ci. yéen a ngi léwal wala deuxième. <laughs> mbay dollar a ngi mbay dollar a yi ci ginnaaw. yaa ngi may rappelé lu yàgg temps booy bi ñu daan nuit blanche temps booy <laughs> mbay dollar moo daan nekk ca ginnaaw di ataaya waaye fi mu ne nii gisaat bi ak meew bi kenn du moom waaw léegi dama lay jox antenne bi directement ak caama dama lay bàyyi ak caamaas bu ko defee mu jox la antenne bi mhm. euh, nga waxtaan ak waa Sénégal tey tamit saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom ci lii nga xamante ni moom la ñu dëkkmal mhm. suba bu neexee yàlla dans deux wala une minute ñu dugg ci muy di euh, fête des mères mhm. ayca ça vous ça moom moom saa yoo pare rek damaa bëgg nga njëkk ma sa saal ba. ma njëkk la fa ma ñëw fekk la fa. <laughs> man léegi damay dem changer damay dem changer yére. Uh-huh. Euh, bu ko defee. mais gërëm leen nag ci euh, ci before gërëmal téléspectateurs yi nga am bokku la ñi nga am minuit de. faaw ma gërëm leen gërëm leen bala ngaa. gërëm nag ah usine gërëm ngay gërëm. <laughs> waa usine gërëm. Uh-huh. ñoom laay am gërëm gi bu ko defee ma gërëm ñi nga xamante ni moo di téléspectateurs yi toog. Mm-hmm. tey tamit di bàyyi xel before message yi bari nañu mhm. waaye xam leen ni maa ngi dem changé ji dellu siwaat léegi bu ko defee àndandoo ak yéen ba guddi gi xaaj dañuy jox antenne bi Omzo mu waxtaan ak yéen waaye nag gërëm nañu képp koo xamante ni 23h deux h ba tey. Mhm. mi ngi woon toog doon bàyyi xel li nga xamante ni moo di before minuit. Mhm. before minuit boo xoolee moo di li nga xamante ni moo di lii wàccaayu minuit. actuellement euh, il est minuit. ci biir magazine. <laughs> grand soir jeex na tàkk Thiamas. ji ayca nga jox antenne bi omso yeewi naa la mu euh, mu bëgge yaay sama xarit yeewi nga ma yaay sama xarit <laughs> jeex na man yow laay bëggee <laughs> yow jamono kenn du yow <laughs> Omzo xam naa ni omso yaa nga ca ak euh, xale yu yànji yi macha allah waaye te euh, pour vous rappeler simplement c'était un plateau spécial boo xam ni dañ ko jagaleel à nos chères mamans à yi nga xamante ni Eh, kenn njëkku leen ci ñoom kese la bëgguñu lu dul Sénégal gën a law gën a jëm kanam Sénégal jàmm rek di fi sax kenn ku nekk eh, soxla bi a am eh, yàlla nay faju doom yi ñu bàyyi xel ci Eh, doj la yow nen nga saa yoo ci dalee rek eh, yow yaay gaañu gungeel jur wi jàppale ko fexeel ba it eh, dolli ci moom ma yërmande gi mu amoon ci yow waaye it xéewal goo am ñëwal nga jox ko sa way jur wu jigéen wi ndax it kenn du moom ndax fi doom yi rawante mu ngi ci wayjur wu jigéen dellu rek di fàttali it que ñoom jigéen ñoom lañu ko boole ñun de dañ leen a topp seen i gët suñuy gët ni tegg ci yéen ñun ñoo leen naw lool ngir seen cër yu mat muuru cig sell tabax leen mu taaru te ànd ak leer ngelawaay eh, fi Sénégal nam ma jëm ëllëg ci yéen lañ ko yaakaar ba tax na it eh, ji la di eh, ziar bu baax a baax suñu xarit yi nga xam ne ñoom sori nañ ñu waaye ñoo wax seen tur cofeel gu ñu am ci Walfadjri jàpp leen it dinañ ci jéem suñu kéem kattan ngir loolu yokk di kontaan ci it salle de maquillage ndax nu nu mel rek bu leen fàtte ni bu ñu dajee ci mbedd mi kanam yu timpi tàmpa la ñuy am yi bënn yi ñuul mais bu ñu fi accès Ndella Amar ñëw ah, raxal ñu lépp ba mu jaar yoon ñu neex a xool moo tax Ndella Amar ñu ngi lay bëggee maquillé kanam bu toll nii eh, boo ko amee heure bu jot si di day jënd weer wu jot mu jënd ay ay poudre yooyu ndax sama li ma yor kanam gee bari gémmiñ gi nee naa ko Ndella moom mënoo koo maquillé gémmiñ gii nii mel ni tool yi moom mënoo it eh, li am solo rek mooy euh, on était là pour vous donner le maximum de divertissement àndoon ak la régie ñooyu muy Cheikh Tidiane au carré Cheikh Tidiane ak Cheikh Tidiane euh, Diop euh, di kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax euh, Abi Ndour ñu lay bëggee yow it ak Aminata Mbaye yéen ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di leen jox rendez-vous suba incha allah ci seen magazine Grand Soir di wax ni it ne surtout pas le rendez-vous sera muy Alioune Alioune. ak muy Pape Alioune Mbaye ci lamb ji waaye laataa dinañ leen jox théâtre bien avant cela restez toujours avec les programmes de Walfadjri Padros leeru jamono ànd ak équipe bu Omzo et lépp ci samedi bi merci de nous recevoir prenez soin de vous chaque jour est une vie à demain inchallah